<laughs> loolu c'est mooy le mensonge par pathologique nit day dem ba day day yegg ci niveau fen niveau boo xam ne moom ci boppam day gëm fen yi. am na ñoo xam ne seen benn compte rek seen benn compte seen benn compte rek fekk nañ fa lu ëpp 1000 benn compte rek nañ fa ëpp 1000 milliards. maa gën moom. mais liggéey ree lan la yow ah ñu ñëw. seen benn compte rek fekk nañ fa lu ëpp 1000 milliards seen benn compte rek foog ngeen ni loolu jaadu na ci réew mi. waaw <laughs> kon ñoo ko déggandoo nee seen xeex yëpp du dara lu dul wëlbati xelu ndaw yi yaay yeey. foo romboon ndaw yi topp la nga romb barki début tuwaawoon benn ndaw topp la léegi nag nee na dañu bëgg a walbati seen xel donc mooy olof jaay li muy waral gis nga nit ki lépp lu mu wax rek dafa fekk xëy na moom loolu la defoon est ce que moom walbatiwul woon xelu ndaw yi ba ndaw yi topp ko nee na kenn ci seen kilifa yi moo ko woo ku nekk xam na ni moom saa yuy wax day jaar ci turu waaye du la tuddal turu kilifa bi de moo ko woo dafa am ku ko woo jox ko xaalis bu bëri pour mu dem seetal ko benn sëriñ bu am xam-xam pour que mu wëlbati xelu ndaw yi ba nga xamante ne xelu ndaw yi dootu dootuñu nekk ci xelam billaay du benn sëriñ moo ko def xam nga ndaw yi lan moo dindi seen xel ci yow yaakaar waroog ay kàddu ambulants yi dafa am loo leen digoon gisuñu ko dund bu cher bi tey ñu gis ko xëy ndaw yi tey emploi bi di gën a yokk courant bi di gën a yokk gars yi di jël Barça wala Barça li jënti woo ma Samba li jënti woo ma Demba waa Bakel di dee ci biir ndox bi faalewuloo leen waa Matam di dee ci biir ndox bi faalewuloo leen lenn nga faale maanaam mooy nooy def pour collecter ay fonds sa bopp jël sa 62 milliards yóbbu ko fële ca Casamance teg sa plan Casamance loolu rek la du benn sëriñ moo tax ma ne sénégalais yi xoolaat leen bu baax. tey lu tax mu xalaat ni ka dañu bëgg a wëlbati xelu ndaw yi amul politicien bu ko mas a xalaat tolloon nañ fi ay jamono ba ay xale di taxaw di naan bakkanu leaderu parti Pastef moo ma gënal sama bakkanu sëriñ bakkanu leaderu parti Pastef moo ma gënal sama yaay dem na ba nit taxaw ne leaderu parti Pastef su soxla woon sama jabar ma jox ko ko tey mu tëddee ko ba pare ma taxaw ne di ko seetaan gis nañ fi ku taxaw ne su bëggee sama bàjjan ma jox ko mu violé ko kon ñooñu la ñu wëlbati woon seen xal Nous sommes une walbati woon seen xel ju topp de Olof Njaay nag nee na lu du yàgg am na yenn liggéey yoo xamante ne soo dina jàpp ci de mais jour buy fay wala di jeex dalay bet kon loolu moo ko commencé bett tey mu xalaat ni que tey yii loolu mu defoon noonu comme moom def na ci xelu ndaw yi tey pour dindi ko ci xelu ndaw yi ndaw yi kenn deful dara ci seen xel pour ñu dañ ci yow ndaw yi seen ñoo la benn par benn musoo def live boo xamante ni plus de 90 mille vues say live du deux vues tey foo taxawee di wax ñu lay yuuxu kenn musul xalaat ni que leaderu parti Pastef dina taxaw di wax kenn du ko yuuxu nañu xoolee vidéo bii nga xamante ni yaa ngi ko doon def ji feer ñu dellu si. amuñu ndox amuñu ndox amuñu ndox amuñu ndox naan ñun waa ji biir duñ naan duñ naan amuñu ndox naan ndox ñun duñ naan duñ naan duñ naan daan nañ naan waaye naan duñ. jamonoy Macky daan nañu naan jamonoy Macky daan nañu naan naa dund naa dund amuñu ndox ndox ndox amuñu ndoxu naan amuñu ndox amuñu ndoxu naan amuñu ndoxu naan amuñu ndox ndox ñun waa ji bi duñ naan duñ naan ñun duñ naan duñ naan duñ naan amuñu ndox amuñu ndox ndox ndox ndox naan amuñu ndox amuñu ndox sase ndox deux ans la jar deux ans sase ndox deux ans ñu naan ñun waa Djibir amuñu ndox amuñu ndox. kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo ku yaakaaroon ni que leaderu parti Pastef dina taxaw di wax ba jeunes yi taxaw di ko yuuxu amuñu ndox amuñu ndox dégluwuñu ko sax. tay li nga xamanteni ñu ngi koy dund ñi amuñu ndox ñi amuñu courant ñi amuñu xey ñi bëgg nañu jënd sax lu ñu lekk amuñu ko ndaxte prix yëpp cher te gisuñu fu ñu jëlee xaaj lii moo soppi xelu ndaw yi ci yow ndaxte li nga leen digoon da nga waroog ñoom lépp loo leen waxoon ba ñu gëm la rupture systémique dañuy ñëw gis fi li nga xamante ne maanaam mooy transhumance continuer jaay doole injustice jàpp ay nit di tëj fu la neex nga dugal leen je crois que lii moo tax ndaw yi woon la ginnaaw xoolal ma Déthié Fall am sa parti PRP bokk ci coalition wala dem battre campagne tey nekk ci ginnaaw leaderu parti Pastef mel ni un garde corps xoolal ma Déthié Fall est-ce que gàcce weesuwul lii nga doon leader yor sa parti ay nit topp la tey yow nga jël sa parti nga ne da nga koy seeyal investir ñu la ci liste defuñu la ci dara nga topp ci campagne boo xamante ne yow yaa nekk ci ginnaaw mel ni un garde corps kon yaakaar naa ni Cheikh Thioro bii naa ni que képp ku bëggul leaderu parti Pastef sa ndey liggéeyul yaakaar naa ni na xooli bu baax ñan la seen ndey liggéeyul yow ngay góor may góor. nga am xam-xam ma am xam-xam nga jàng ma jàng ma def dara ci politique jaar école du parti jaar réew mi ba tey jii teg sama parti ay nit topp ma ma dem ba ci élection yi des tuuti ñu nax ma ma ñëw daal di démissionné woor ñi ma àndaloon ba noppi topp ci ginnaaw nit di mel ni yor di yoggaaral mel ni koo xamante ni benn sentinelle nga mel ni benn garde corps en tout cas gàcce weesuwul lii gàccee weesuwul li donc je crois que li dindi xelu ndaw yi ceew mooy ñii duñ la wax waa Jifeer amuñu ndox fexeel ñu am ndox lañu ëppal solo nga téye sa micro di wax ak ñoom.